jërëjëf chers téléspectateurs de Baol TV dalee nag jàmm seen émission Paré Nama tey aujourd'hui on a le plaisir de recevoir sur ce plateau euh, Modou Gueye euh, le coordonnateur du mouvement Gëm sa bopp du maire euh, Malick Fall Modou Gueye tamit en même temps ñu rappeler ne vraiment toutes les activités yi nga xamante ni ñoo ngi koy coordonner dans le cadre vraiment du mouvement kenn du ko ci génne mu ngi ci def liggéey bu remarquable Modou ñu baale nga li nuyoo ak ñi nga xamante ni mooy sunuy internet. waaw bu baax a baax di nuyu équipe technique bi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ak euh, di ñu seetaan di nuyu waa Njaareem yëpp. Modou Gueye yaakaar naa ne vif euh, au sujet la ñuy def tey jii muy euh, li nga xamante ni mooy incident bi fi am euh, à deux jours de l'investiture du président Macky Sall à Arena Dakar Diamniadio ñu gis ne ne siège yu sa bopp y a une reprise vraiment d'une réunion boo xam ne jotu nañu ko tenir au niveau du siège de l'APR lan moo war a laa ñu tenir réunion boobu sax ba même mi incident. waaw sëñ Mor incident boobu bon du ma ciy sori noonu trop. parce que mbir la moo xam ne euh, am na ba jàll man euh, yàlla xam na ne bi mu passé la tournée page bi mais juste rek pour leeralal euh, ñi nga xam ne xëy na peut-être ñooy dégg ak di gis te xamuñu lu xew li waraloon réunion boobu ñun <clears throat> au niveau de Gëm sa bopp ñu convoqué benn réunion boo xam ne dañ ci woo coalition bi yëpp c'est-à-dire que bi ñu tàmbalee parrainage bi. Euh, le président de la république euh, son excellence monsieur Macky Sall dafa waxoon ne euh, parrainage bi yëpp daf koy jaarale ci maire yi ci mairu commune yi la koy jaarale donc loolu moo taxoon bi ñuy dem bi ñuy préparer congrès bi aussi moo waxoon ne maire yi ñoom ñooy ñoom ñooy organiser bon fekk na euh, avant ñuy tenir réunion boobu ñi nga xam ne ñoo nekk euh, responsable yi nekk APR donc am na benn réunion boo xam ne donc defoon nañ ko vraiment pour euh, tànn délégué yi nga xam ne ñoo waroon a représenter Diourbel ci congrès boobu donc bi ñu ko defee pare yàlla def na nag euh, ñun convoqué wu ñu ci woon bon ñun tam euh, comme aussi dañu nekk yor mouvement boo xam ne mouvement bu discipliné la ñun tam assisté wuñu ci demuñu ci ñu yàbbi ci donc amul benn wax boo xam ne dégg nañ ko ñu ne jóge na gëm sa bopp buy boo xam ne dafay remettre en cause li nga xam ne ñoom def nañ ko foofu yàlla def na aussi bi ñu demee ba euh, logistique yi ñu war koo joxe ak yooyu ñoom ñu xamal leen ne euh, maire bi moo war a organiser d'ailleurs euh, ñu ci instruction ñoom yi président joxe woon ñoom ñu jël matériel logistique yi donc ak li nga xam ne moom la ñu waroon jox délégué yi nga xam ne ñoo waroon représenter commune bi ñu jox ko maire bi ñu ko joxee maire nag comme moom aussi dañ ko ko jox parce que président daf ko dafa am yaakaar ci moom jaarale liggéey bi ci moom moom tam mu woo coalition bi yëpp woo woo parti politique yi nga xam ne ay parti allié lañ mais aussi woo mouvement de soutien bépp mouvement de soutien bu fi nekk di soutenir euh, président Macky Sall maire woo na la parce que dafa am benn euh, wax bu ñu dégg président di ko wax bu yàggul ba tey mooy que moom waxi mouvance présidentielle léegi la wax mais waxatul waxi Benno Bokk Yaakaar donc ci biir loolu lañ sukkandiku monsieur le maire woo nee nañu wootee réunion boobu euh, woo ci waa coalition bi yëpp woo ci mouvance présidentielle yëpp pour que ñu jéem a xool naka la ñuy def pour tànn Euh, délégués yi nga xam ne ñoo waroon représenté commune Diourbel donc loolu moo loon moor euh, woote bi yàlla def itam amul kenn koo xam ne fàtte nañ ko euh, woo ci réunion ñëw yaakaar naa ñi ñu ci waroon woo ñëpp woo nañ leen comme itam ñoom fekkoon ñu am liggéey boo xam ne defoon nañ ko te loolu yëpp tam li ko waroon manque de communication rek la woon man boog personnellement noonu laa ko jàppee mais comme Euh, weesuwul woon pour ñu defaraat liñ jotoon a liñ jotoon a def parce que bëri na ñoo xam ne centurion jéeguñu woon seen bopp ci ci réunion bu njëkk boobu parce que am na parti allié yu bëri yoo xam ne kenn euh, invité wu leen woon ci réunion boobu donc te le moment vraiment ñu rectifier waa defaraat lépp parce que booloo boobu rek mooy mën a tax li président bëgg ci dëkk bi mu am ko donc ñun ci ci ci lancé boobu lañ nekkoon loolu moo taxoon ñu waral ñu wootee réunion boobu moor ok chers internet chers euh, téléspectateurs de Baol TV yaakaar naa ne lu ne fàng kenn dootu ko jeex boobu ba léegi euh, y avait trop de question au niveau de la toile di laaj pour pourquoi reprise du réunion bi pourquoi aussi li nga xamante ni mooy incident bi incident bi yaakaar naa ne dëgg la bëggoo cee ñëw tuuti mais waroon ñoo xam un pour l'objet parce que tamit boobaak léegi internet bi euh, que ce soit muy journaux yi partout au Sénégal et dans le monde ñëpp ñu naan voilà jàppante bi lan moo ko waral jàppante bi lan moo ko waral vraiment presse bi du mel ne Baol Times vraiment def na ci relay na ko sax wax na ci mais mu Gueye tu es la nga expliquer ñi nga xamante ni ñooñu seetaan. Euh, d' li ma ci njëkk a wax sax mooy gis naa ay journaux yu bari bind ne Malick Fall ak Moustapha Gueye ñoo doon xeex donc bi ma ko gisee sax ay ay ree ay ree ma jàpp parce que euh, monsieur le maire assisté wul sax ci réunion bi donc euh, moment bi ñu doon def ñoo bi moom. je pense que ci liñ ma taay bu waxoon nekk suñ coordinateur départemental dana woon monsieur le maire mi ngi Touba donc fekkeewul sax réunion bi donc foofu tam Mor euh, bëgg naa ci def ab taxaw tuuti que ne bu ñuy joxee information des fois nañ koy vérifier ñu koy vérifier parce que tam euh, Malick Fall kilifa la DG Moustapha Gueye aussi kilifa la mais ñoom ñaar ñooñu amu ci kenn koo xam ne assisté nga ci ci réunion bi ay seeni ay responsable ñoom ñoo fa ñoom ñoo fa nekkoon. bon par rapport ak incident bi aussi li ko indi ku ne xam na ne réunion politique bu nu ko waxee euh, xëy na ay coow du ci mën a ñàkk souvent parce que kenn ku ci nekk ña nekk dañuy bari kenn ku ci ne. ak xalaat bi nga am kenn ku ci ne ak fa sa xel toll donc c'est tout à fait normal euh, des fois divergence am euh, ay manque de compréhension am ci donc kii wax lii kii wax lële xëy na nit da nga wax dara sax euh, na la tax nga di ko wax ak na ko nit ne ko keneen di gisee loolu bokkul liir naa aussi ci journaux yi ñu ne man ak Talla Fall ñoo doon jotee Mourtala Fall loolu tam may wax fii ne loolu amul Mourtala sama xarit la sama frère la dañuy déggante tout le temps donc man ak moom jotewuñ dara ki nga xam ne moom laa doon waxanteel xëy na peut-être ba euh, coow loolu am je pense que Mao la tudd donc euh, li tax tam ñu dem ba egg ci bon xeex di dóorante gi demee noonu euh, c'était c'était loolu c'était inévitable parce que tey je pense que ne tey jii muy man muy yow ak keneen ku mu mënti doon yu mel noonu su amee nit wutal si la attaqué la song la mais doo toog di ko seetaan mu di la gaañ parce que Diourbel fii ñëpp xamante ñëpp a bokk tey bu ñu la fi gaañee bon ñu ñëw arrêté ko jàpp ko deux jours lañ ci teg ñuy ñëw di ñaan njekk buñ ko toppee ba ci biir sax ay mbokk ngeen di doon. donc nit ki aussi mënoo toog di seetaan ay nit di la attaque parce que réunion boobu euh, kenn ku ci ne entité bu ci ne dañ la waxoon nga yabal quelques représentants benn wala ñaar. mais dañu seetlu ne bi ñu ba ci biir réunion bi ñi nga xam ne ñoo féete ak euh, DG Moustapha Gueye ñoom dañu commencé woon remplir salle bi gaare ay taxi di wàcc di ñëw di wàcc di ñëw di wàcc di te ñu ci bëri kenn convoqué wu leen ci réunion bi donc mu mel ne loolu lépp dafa am loo xam ne ñoom ñu ngi ko doon préparé ci biir parce mënuñu nangu euh, le maire mandaté ñu pour que ñu woote réunion boobu réunion boobu tey mënuñu woon a nangu mu échec parce que euh, lu lu mel lu toll noonu ñu dénk ko le maire à 48 heures du congrès su réunion boobu eggul woon mais kon ay délégué du am réunion ba dafa yàqu su ko defee dañ naan échec dafa am ci tâche bi nga xam ne confié nañ ko euh, monsieur le maire donc ñun tam en tant que jeune en tant que responsable loolu moo taxoon ñu opposé wu ci lépp loo xam ne dafa naroon a yàq réunion bi man nag personnellement dégg naa wax ju bari am ñoo xam ne nañ ma bon kilifa nga waroo nekk di xeex ak nanga mais defuma lu weesu défendre sama bopp parce que ay nit nu mënuñu nekk presque une dizaine une quinzaine de personnes attaqué ma song ma bëgg a dal sama kaw bëgg ma gaañ ma toog di leen seetaan ñu di ma gaañ loolu dama ko def dama défendre sama bopp fayu ci dóor yi ñu ma doon bëgg a dóor ñu dem jël ay yat ma dem jël xeer loolu la rek après mu jeex bon yàlla def na euh, bi ba laataa ñu fay jugee réduire nañ angle yëpp vraiment waxtaanaat réunion bi eggale nañ ko d'ailleurs bi paree ci réunion bi ba def dispatching bi sax matériel yi nga xam ne moom la ñu waroon a remettre euh, ñi fa teewaloon Moustapha Guèye ki ma doon joteel moom man maa ko ko remettre ci ay loxoom donc àdduna noonu la. Eh, je pense que page boobu tamit tourné nañ ko daal mi ngi ci suñ ginnaaw. jërëjëf page boobu yaakaar naa ne eh, ñi nga xamante nii ñooy internautes yi dégg ngeen ko moo Gueye neen tourné nañ ko politique ak yooyu ñoo ànd eh, nee na du dara loo xamante ni mënut a war a ñàkk la rek ay défense la woon yaakaar naa ne loolu leer na ci bopp yëpp waaye Modou biñ jógee ci investiture boobu ñi nga xamante ni mooy waa gëm sa bopp ci réunion boobu waaye gëm sa bopp war a dem ci congrès bi gëm sa bopp n'était pas très bien représenté d'après des informations et waaw loolu ñu bëri ñu ngi koy wax mais xam nga comme ni ma la wax rek ñun dafa am benn euh, organisation boo xam ne moom moo am ci suñu biir. parce que tey euh, Mor boo xoolee en 2014 bi ñuy gagné élection yi fii élection locale yi euh, je pense que ne ñaari oto lañ yoroon donc amuñu woon moyen doon ko seq ak parti politique boo xam ne parti au pouvoir la yoroon ay moyens yoroon ay directeurs généraux ak ay ak ak ay possibilités yu bari mais malgré tout ñun rayante nañ. ba yàlla def ñu gagné leen ci ci élection yooyu ba pare avec la manière donc loolu xëy na li ci ëpp mooy jurbeluwaay ñoo amoon ci ñun conf ci ñun confiance mais aussi am nañ benn forme d'organisation boo xam ne loolu ci suñu biir la ci suñu biir la nekk dafa boo xoolee gëm sa bopp mouvement la boo xam ne nit munu koo bët parce que dafa am benn organisation bu nekk suñu biir loolu nag secret la parce que dañu jugaat ay yeneen euh, échéances yoo xam day nekk suñ kanam te xëy na peut-être bu ñu fësalee suñu ay stratégie mën nañ fa jaar donc ba bëtt ñu loolu moo tax mais daal li ci am solo mooy gëm sa bopp représenté wu na ci congrès bi euh, loolu moom moo ci euh, loolu moom moo ci ëppoon solo parce que tam liggéey bi du dem ci ay congrès yuuxu fii yëkkati ay pancarte fii sol ay t-shirt fii loolu du loolu liggéey bi du loolu liggéey bi ci terrain bi la tey jii bu fekkee dañu bëgg jàppale président de la république pour mu gagner ci élection yi ñu yi ñu jëm donc du ci euh, ay congrès yooyu lay feeñee mais ci carte yi lay feeñ ci liggéey bi ñuy liggéey ci terrain bi lay feeñ xëy na peut-être bu ñu demee euh, bu fekkee ne dugg nañ ci affaire parrainage bi dana dana justifier li nga xam ne ni moom laay wax ni mais li ci amoon solo daal mooy en tout cas mouvement Gëm Sa Bopp représenté wu na ci congrès bi te je pense que loolu c'était l'essentiel. jërëjëf Modou Guèye di leen fàttali gi ñu toogal mooy Modou Guèye euh, nekk maanaam coordonnateur li nga xamante ne nii mooy mouvement Gëm Sa Bopp bi nga xamante ni Malick Fall moo nekk ci bopp bi. moom